asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV euh, mbokk yi su ngeen gisee ñi ma toogal seen xel yépp day daw daje ci jàmbaari Cheikh Seydil Hadji mari Sy jooju taalibe Seydi Mouhamadou Mansour borom daara jooju bëgg loolu Cheikh Seydi abu Bakar si di jàmbaar ci xadara bi muy kan sunu baay Dame Diop tabaarakallahu bi nga xamante nii dama wax bërki démb ñaari doom yu tedd yi ni leen seen bàyyi dafa wax wax boo xamante ne ni bëb bu taddi wal moom kese moo ko wax ci jumaay Seex Seydi Hajji Maalik ji muy ban wax moo waxoon Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour bi ñu lancé jumaa ji mu ne ko jumaa ji jaral na maa jaay sama kër def ko ci jumaa ji ba du ma dese fistin loolu moom moo ko wax te ci moom lay yem keneen waxaatu ko tabaarakallaahu ñu nekk nag ci gàmm goo xamante ni Baye daam Diop daf ko wuute mu feeñ lool tabaarakallaahu ci xol yi feeñ loolu ci kanam yi ñu toog ak ñaari jàmbaaram yi ñu bëgg a commencé waxtaane tuuti Baye Dame Diop ngir pas-pas bi mu amoon ci xadara bi ñin topp ci ginnaawam xam ni nit dafa war am pas-pas ci sëriñam Modou Mbène maa ngi lay ziar. maa ngi lay dellu ziar El Hadj Mbengue. te ñu war a waxtaane Baye Diop kan mooy Baye Dame Diop. waaw balaa loolu dañuy nuyoo di di wax salaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mbokki Sénégal yëpp di nuyu si diaspora bi di gërëm aussi maam ndox. ci initiative yi nga xam ne ak taxawaayam ci réew mi rawatina Tiwaawan gi ñu bokk kon tey boo amee initiative di wër Tiwaawan ba ñëw ci ëttu si Alaaji Dame Diop Maam Mansour euh, yàlla anu di ko ñaan yàlla yal na yàlla yokk leeram day nekk mbégte kon ñu leen nuyu baax di la tontu di di la di la sargal di la tatagal di nuyu sunu wayjur sunu sëriñ sunu maam sëriñ Babacar Si Mansour xalifa général Tidiane di ko ñaan yàlla yàlla yàlla bàyyi ko fi yàlla na yàlla yokk wéram yàlla na yàlla yokk man-manam yàlla yàlla yokk fanam ko ñaan yàlla li mu naal ci réew mi naal ko ci Tiwaawan loo xam ne ay maamam ay baayam ñoo ko fi ñoo ko fi sosoon yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla àgg ci moom ci kattanam ak ñu ko àndal ñëpp di nuyu waa Tiwaawan di nuyu sunu sëriñ sunu lépp sëriñ si am sëriñ Cheikh sëriñ si Mansour ak i rakkam ñu ko nuyoo rek nuyoon Tiwaawan yëpp nuyu nañ sëñ Seydi Mouhamadou Moustapha ibnu ibnu ibnu Mawlaay Abdou Aziz nuyu nañu nuyu mag ñëpp kon ñu ngi ko tàmbalee foofu rek di am mbégte bu baax nag tey hmm. euh, maam ndox euh, Baye Dame Diop Mansour lañ bëggoon nga wax ñu kan mooy kan bi ci des ci beneen laaj bi may wax moo yi xew léegi hmm. ci def ci xadara bi jël sa jël sa ay millions def ko ci mën naa ni Baye Dame Diop moo ko moo ko njëkk a commencé ci xadara bi loolu dëgg la maam ndox ndax ku xam alxaaj Dame Diop Mansour taalibe Cheikh na Tidiane la taalibe njabootu Seydi Hadji Malick yëpp la waaye yàlla da ko yàlla da ko yàlla da ko mayoon cër ci ëttu Seydi kër sëy Sëriñ Mansour si ndax ñun suñu ànd ak tio ak njabootu Seydi Hadji Malick du tey booba Tiwaawan amul ñun suñu maam Ngunta Faati Jóob moo àndoon ak maam Seydi Hadji Malick ca Ndar booba ñu àndoon ci boo xoolee ci archive ci archive national maam Ngunta Faati Diop moo nekk sëcce mu xaddam bu àndoon ak Seydi Hadji fii ci ci réew mi bari na fi tey. boobu Seydi Hadji Malick ak Ségul na fi tey fii ay mu xaddam yu tudd sama maama jàpp ci seen loxo yóbbu leen ci Seydi Hadji Malick maam Ngunta Faati Diop moo njëkk a bayal tool maam El Hadji ci Njàmbur. Hmm? waaw maam maam Ngunta Faati Diop kon tey. ñun dañu bokk Tivaouane sama papa daal wax ne Tivaouane bu doon société ñun ay actionnaire lañ ci moo tax moom daal wax ne ñaari dëkk yi yamalu ko ak fen mu fa mu tëdd ca kër ngunta ak Tivaouane gi kon tey dañu am mbégte nekk na loo xam ne maam ngunta dafa da koo donn ndax maam ngunta moomu Seydi Hadji Malick seexal na ko Seydi Hadji Malick bàyyil na ko ak doomam Seydi Hadji Malick na maam ngunta doomam doomam ju mu jur bàyyi la ko mam jur bàyyi euh, mu jugee Tiwaawan ñëw suñu dëkk kër munta fa la war a dem seeti euh, affaire Jolof muy maam yi si Ousmane Niang mi tey tey bu bu get kon Seydi Malick ak maam Gounta Faty Diop du ñu woon ñaar benn la ñu woon taalibeem la woon waaye wëllëreem la woon ndax wëllëre ak mbokk ak taalibe weesuwul sa sëriñ jël doomam bàyyi la ko te loolu loolu Seydi Malick defoon sëriñ Abdou Aziz Dabakh def sëriñ Abdou Aziz Amin def na ko jël na doomam sëriñ Mouhamadou Moustapha bàyyi la ko El Hadj Abdou Mansour allahu akbar hmm. Seydi Mouhamadou Moustapha bi nii suñu bàyyi El Hadj Hadj Mansour la ko sëñ ma sëriñ sëriñ Abdou le na ko yaay sama parrain la moom la ko bàyyil na ko yaay parrain maa ngi fàttali keroog ba ñuy ñaar ba ñuy dem Faas sama papa daa ñëw toog ci bunt bi sëriñ Abdou seen ko ne ko man dax man yaa war ñëw fi wala maa war a toog foofu man dama la si rek yaay ñaan si. te loolu waaw te loolu sëriñ Moustapha xam ko loolu. di suñu mag di suñu xarit di suñu sëriñ wax di yàlla muy ni ku baax koo xam ne doxal na ko ba mat sëkk maa ngi dégg dem ay seede muy wax ci diggante àndu baayam seed sëriñ Abdoul Aziz Al Amine ak sa baay di wax ni ànd bu yàgg la dëgg la euh, maam ndox li nga ko waxee moo am ndax euh, li ma wax rek ànd bi du tey ànd bi sëñ xaaj may loolu ak maam ngunta Fatou Diop ndox suñu maam ngunta euh, dafa ànd ak sëñ xaaj may lu yàgg ca ndar dañu mm-hmm. fasante woon kóllëre ba bi ñëwee ma fa lañ tàqalikoo Seydi Malick ne ko ne ko Malick ne maa ngi dem ndax Louga gi Thierno Malick Sall fi nekk te ñaari kuy duñ bokk mu babal ka fu ma nekk da ko yëg ba muy dem njarnde juróom ñaari mu xaddam yi ko yi ko àndaloon jëm njarnde suñu maam gunte la bokkoon moom Seydi Hadj Malick moom Seydi Hadj Malick radiyallahu taala loolu moo rogalaat di ñëw ba ci maam Bakar Bakar Diop mhm. sëriñ Babacar Diop moomu moo jur Alaaji Amdi Mansour. est maam Nguntaa ko jur. est am na ay doomi bàyyi. Mhm. ñoo xam ne ku ci nekk tey ñun suñu dëkk fañ dëkk ci ngunta kër ngunta mhm. ña dëkk ñëpp cheikh ay seen sëriñ. Mhm. njabootu ñëpp ay taalibi cheikh lañ. am na ju am na am na 37 maisons ñoo fa nekk. kër yëpp naa si xaq yi mooy seen wasila. sëriñ Babacar Si mooy seen sëriñ. së sëriñ Aji Maalik mooy seen sëriñ ndax ñun suñu maam Ngunta. dafa jël njabootam kenn ku ne ci njabootu Seydi Malick mu dénk la kenn kenn ku ne ci ak ci ba ci ba ci Serigne Babacar Sy ba ci njabootam nga xam ne maam Bakar Marème moo leen jur kenn ku ci nekk maam bakkar jël na sa tànk jàpp na sa loxo yóbbu la ci kër sëñ Moustapha ñii mu yóbbu leen ci kër sa Serigne Cheikh sama papa en 1961 la bàyyam jàpp ci loxoom indi ko ci Seydou Seydou Mamadou Mansour loo xam ne du tey. dëgg la mais tey dama bëgg ñu ñu concentré wu ci Baye Dame Diop jàmbaar ji. jërëjëf ndax xam nga lu tax. Mhm. Euh, bu may def émission ci paa yi damay bëgg ñu insister ci ñoom parce que xale yi topp ci seen ginnaaw. pas-pas bi bi bi bi jur yi amoon li ma ci gën a neex mooy fexe ba seen njaboot kenn rëccu leen moo tax mu bëgg nga waxal ma ci Baye Dame Diop pas-pas bi mu amoon ci xadara bi lan la lan lan maanaam jàmbaar gi lan la. waa loolu maam ndax lu am solo la ndax Sénégal. xëy na xawma ma ban jamono moo moo jaru woon wane mag ñi waaye jot na. Hmm. ndax nit bu amatul repère rek te rawatina ñu ndaw ñi genes bi war nañu xam fan lañu bokk ak fan la ñu jóge hmm. ak tey li ñu am lu ñu ko may. ndax Alxaaji Lamine Mansour li ma la wax rek fa mu tàmbali ca maamam ba ci baayam ba ñu ngi ko bokkal nag ndax li ma waxee rek noonu mu amee ci kër sëñ Mouhamadou Mansour noonu la amee ci kër Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ca Fass noonu la amee ci kër Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy noonu la amee ci kër Serigne Abdoul Aziz Dabakh noonu la amee ci kër kër sëñ Maodo Sy Alhaaj euh, Abdou Mansour li ma wax rek dafa judd ci Tidiane judd ñëw fekk ma maa ngi jégul sax ci kàddu gi dafa gane jamono fekk muy Tidiane fekk maamam ngunta ni nga ko waxee sànq rek ànd ak Seydi Malick baayam ànd ak Serigne Babacar Sy loolu di rogalaat tey jii ba agsi ci moom mu def ci loo xam ne taxawaay boo xam ne ci diine ji ci tarixa ci tarixa tarixa bi bokk ndax jàmbaar la woon yoo xam ne kenn werante wul woon bëggam Tiwaawan billaahi wallaahi benn bis ñëw na ziar sëñ Mansour ndax fii mi fi ñu dëkk nii bi mu dëkk nii bi mu koy jënd en 1985 wala 86 bëgg Tiwaawan tax ba maa ngi dee benn mag ci suba mu ne ma sa bàyyi daayira bi ñu bokkoon boobu jamono melul nii. Mm-hmm. moo daan wër di laaj deux cent francs yi ñu daan jëyee nagu nagu nagu gàmmu moom la ko maamam ma moom la ko bàyyam santoon wala boog maam la ko maamam maamam santoon mu koy wër di ko laaj mbokku taalib bi. que booba temps Tiwaawan demul nii. Mm-hmm. am na fu ñu daan dem di fa jëli sax ndawal bu bu bu ñu toggee ndawal. mais pas-pasam. day loo xam ne daanaka mën naa wax ne da koo ganewaale jamono. moom Baye Dame moom Baye Dame waaye yemalewul dara ak Tiwaawan. daan nañu wax ne ñaari dëkk yemale mu fenn muy kër ngudd ga ma dëkk ak Tiwaawan dara la ko yemalewul. mais Baye Dame dafa mel ni bu daan bu daan jël wërsëgam di ko def ci Tiwaawan daal day taqali koog sagam loolu lan la. maam ndax lu yàgg la euh, fi mu jaar ak Seydou Mouhamadou Mansour jaar fa ak Tiwaawan dafa bari waaye daanaka wax ne lu ma am te noonu ma ko bëgg a Tiwaawan yàlla bu yàlla bu bu bu ma ko yàlla jox. moom Baye Dame Diop dama ci nett loo xam ne lu yàggul rek la benn anecdote boo xam ne bii sëriñ Abdou Aziz Al Amin amee initiative defar jumaa yi sëriñ Babacar Si ji ndax dafa xëy ne daal sama jumaa yi bàyyi ji daal ni mel nii neexuma ndax fënal ko nit di jaar dafa bay toolam ba ba mu jeexal jaay jaay ngooñ ma xam naa lim ba dama tollu ci xaalis mu taal otoom ñëw Dakar seet si góor gi ñu waxtaan bay dem mu ko daal alaaj daam mu ne sama jumaa yi bàyyi ji daal laa bëgg a muré defar ko ñu waxtaanee ba pare mu wax ko li mu bëgg ci wàllu fa yëpp na ko daal si la ko loolu moom sëriñ bi yow laa ciy déglu bi ñu wàccee ba ci oto bi sëriñ papa di ko di ko di gunge mun ne ko sëriñ bi boo ma joxee ndigal ma defar ko. Baye Dame Diop Mansour moo wax loolu sëriñ. moo wax loolu ne ko boo ma joxee ndigal ma def ko mu ko jox naa ndigal mu ñetti fan mu taaw tam ñëw Tiwaawan seet si sëriñam seet si léppam Seydi Mouhamadul Mansour mu wax ko ko mu ne ko sëñ Abdou wax na ma ko waaye daam na nga sant sëñ sëñ Abdou ndax jumaay sëriñ Babacar Si kun ko jox ne ko liggéey la ko ne ko ne ko Abdou Aziz defal na teraanga boo ko mu dafay mukk billaahi loolu fa la jaar moom ñëw Tiwaawan engagé wu liggéey bi moom ci boppam personnellement moom moo ko taxaw tabax jumaay jàkk dafa jàkkee jigéen ñi pare miire jumaa ji moom Baye Dame moo ko miiree def ko ba mu ba mu pare keroog ba ko sëriñ Abdou di annoncé dafa tombé nag ziaru Asura. Hmm. mu leen leen dem naa waxtaan ak sunu mbokk sunu taalibi sunu xarit sunu lépp alxaaj Dame Diop Mansour nee na jumaay Serigne Babacar Sy dana ko miir dana ko defar. la ak jàkkay jigéen ñi fi mu toog ma paate ñu joxe deux cent mètres cube béton. Hmm. sëñ na ko de li ngay def daam ngay dimbali. Hmm. te yooyu. mooy li ndaw mooy li gën a tuuti jumaa ji moo ko miir ba mu àgg tabax jàkkay jigéen ñi mu pare sa nga am ndox dama am lu ma sax metti foofu ndax sa nga décoration bi ci jumaa ji jooju noonu bi nga xam ne moo wër jumaa ji déco ci euh, bi ñu koy liggéey yaa xam njaay bi dëkk Tiwaawan xam na li ma ko wax nekkoon na Arabie Saoudite bronze boobu billaahi wallahi taala yi Arabie Saoudite ko sama bopp commandé def ko fret par avion dañ ko peinture ndax dafa laajoon entretien boo xam ne bu ko doon def jarul sax peinture mu nekkoon liggéey boo xam ne liggéey mu amul yéene la taxaw ko ànd kook ay magam ay sëriñam sëriñ Mouhamadou Mansour ak rakam ja sëriñ Abdoul Aziz ak ñu ko àndaloon ñëpp di ko dox ba mu àgg te loolu mooy li mujj loolu mooy li mujj fi mu jaar ak fi mu jaar ak kër gi dafa nekk loo xam ne ña yàlla yàlla na wéy waaye ñun Tiwaawan lañu. silsila Tiwaawan mooy silsila Kër Ngunta silsila Tiwaawan mooy sunu lépp ñun ni Tiwaawan di doxee rek la la sunu dëkk doon doxee bi Kër Ngunta Diop sama li nga wax ci moom li Modou wax ci yëpp ci moom ca maam yàlla si Ngunta la ci Bakkar ba ci moom ak ay magam góor gi dafa amoon kilifa da wax wax bu am solo ci ndaw ñi tey valeur yi yañ lañ war a am muy muy question bu boo xam ne dafa am solo suñ papa ñun dafa amoon kilifa ba nga xam ne alaaj daam dafa amoon kilifa ba nga xam ne lépp lu masaan a def bu ci magam moo magam bi mu amoon yi mu amoon buñ ci d'accordul du ko laal du ko jege moo tax Dial Mbaye waaye waaye woowam woyoon ne am teraanga am kilifa loolu moo jafe dégg nga bu baax mm-hmm. am teraanga am kilifa dafa yombul te jamonoy tey fi ñu toll xale boo ci gis mu am teraanga as lu muy njëkk a def day diir magam day diir mbagg magam du ak baayam ay baayam te yàlla ñu yàlla mosul ci loolu Sénégal li ñuy wax foofu mooy na xale yi dellusiwaat siwaat suñu génération ak ñi nga xam ne ñoo ñu féete génération bi ñu gën a mag tuuti nañu dellusiwaat xam na kat àdduna bi dara amu fi lu dul am kilifa am kilifa rek moo wóor man de sama kilifa gii muy Modou mbenn ci télé laay waxee du ko weddi mukk incha allah rabbi yàlla dogal na tey jii bu ma amee boo ne am naa benn kilifa moom mii la. mais loolu xanaa bàyyi dem ju Mansour moo leen ci suuxat. moo suuxat mooy fi ma la wax ne la alaaj daam daaw la def lenn lum dàkkurul ak ay kilifaam kilifaam magam a ngi ci suuf fi may wax yow ni mi ngi ci kër gi heure bii daaw ñoo fi nekkoon ku waxoon na ren yàlla du lii lay dogal doo ko xam yàlla rek kay kariñ magam boobu dem na ba ne tey jii de bu bu sañoon tey mën naay dem bàyyi fi daam. xam nga loolu lu ko waral. am kilifa liggéey bu yaatu la. Mhm. bu mu liggéey moom alaaj daam. kon Sénégal nañu dellusiwaat siwaat valeur yooyu rek lañ amoon ñun amuñ lii fi feeñ ak pétrole yeeg fi nekk ak yépp du dara li ñu am suñu valeur bi ñu am ñun mooy moo ëpp doole mooy respe sa mag nga xam ne sa mag la sa rakk mag yërëm rakkam. man de sama mag yi ku ma yërëm la ndax yàlla dogal na tey li ko waral ndax cër la ki ki nga xam ne moo la def kilifa kooku moo la sonal na xale yi yeewu ci loolu hmm. ki nga xam ne defu la ko xoolal kooku bu lu mën a def yow doo dugg ci mbiram parce que yaa ngi bañ nga dugg ci mu toroxal na lu ci soyoon sa mag ak wala sa baay yàlla na yàlla mosul ci loolu kon nañ dellusiwaat na xale yi dellusiwaat ci ci valeur. incha allah beneen euh, question bi ma lay posé mooy dama dem Ngejj defe naa Ngejj ci seen dëkku maam yi la bokk. waaw suñu dëkku dem naa tamit Ngunta. def naa fa reportage. question bi ma la ciy posé mooy Baye Dame Diop Mansour li olof di wax naan bu neen ndax nit baax na dan naan ndax bokk yaa ko wax. seede yi nii seedeel baay Dame Diop posé naa ay question micro territoire mais dafa mel ni teraanga yi muy def ci ay bokkam la ko njëkkee parce que Ngejj keroog bi ñuy inauguré taliba maa nga fa woon euh, loolu loolu lan la lu waral mu jiital ay bokkam doog cee keneen. yàlla dogal nag keroog boobu mu koy def guddi googu ndeysaan ñoo ñu toog ci néeg bi ñuy waxtaan bu dem mën a aas li ma bëgg njëkk a def li ma bëgg li ma bëgg mooy lii muy ngejj rek. ba mu ko ginnaaw mu ko defee dëkku baayam ba pare. Mm. dëkku yaayam foofu mooy dëkku yaayam mooy ngejj jóg. ngeej jóob googu pour wax la ne alaaj daam li ko seq lépp ay waliw lañ macha allah tabarakallah ndaxte maam Galaay moo àndoon ak Cheikh Omar. Cheikh Omar Fouti loolu la ñu la àndaloon. Mhm. Cheikh maam Galaay moomu moo jur euh, euh, sëñ euh, maam Nuuru Diop. Mhm. Mouhamad Nuuru jóob la tudd. Mhm. ki jur sama maam Faat Nuuru Diop. Faat Nuuru Diop moo jur alaaj daam Diop Mansour. sëñ aadi ci ci bàyyi ci ay ci ay wali yu la génnee. sëñ aadi mooy moo jur alaaji mujj bi ngeen dégg ci Louga. sëñ aadi ak Nuuru Faat ak ak Nuuru ñoo bokk ndey ak bàyyi. aadi jur ma ma ma mujjib jóg Faat Nuuru ak ña ci topp ñëpp nag. Hmm. muy bu yaatu mbokk bu yaatu la. Hmm. macha allah. Faat Nuuru Mouhamadou Nuuru moo ko jur. Fatou Nourou Diour El Hadj Dame Diop kon mën naa ni maam euh, Baye Dame Diop du Cheikh Hadj Malick moo ko moo ko moo ko dugal ci ci ci tarixa tijaan bi ñuy ñëw dañoo indaale seen seen werdu salaatul faatiha. indaale werdu salaatul faatiha muy sam maam muy sunu maam ñaari maam yëpp nag. dañoo indaale. bi ñuy xam Cheikh Hadj Malick fekk na ñuy werdu salaatul faatiha. fekk na ñuy werdu salaatul faatiha. est-ce fekk na it seen alxuraan macha allah. Mhm. waaye Seydi Hadj Malick tabaarakallahu. li ko yàlla defal. Mhm. waaw. dama lay dog as foofu maam Ngunta li mu wax léegi ci alxuraan li nga yaa ko yaa ko ndax li indi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wëlëree Sëñ Malick ak suñu maam Ngunta alxuraan la maam Ngunta maam Haj Malick dafa ne dafa mënoon ku mënoon a tafsir alxuraan sama maam jógee jógee ñëw Ndar di wut si po poqe booba temps eh, ndongo daara yi poqe la ñuy ñëwoon boobu boo tax bu dee gan amu xamoo fi kenn ci dëkk bi soo ñëwee ci jàkk ji la ñuy dalal mm-hmm. sama moom gudda fanaan ci jàkk ji xëy suba mu tombeek mu tombeek weeru koor mm-hmm. ñëw fekk moom Alaaji Maalik di di di firi alxuraan ci ci ci ci ci ci jàkk ji mm-hmm. ñu ñaar fa lañ xamante fa fa lañ fasante wóolare ba tey mu andi lii tey loolu laa laa indi seen diggante ñoom alxuraan moo seen diggante loolu laa laa teyil dañu dama bëgg ñu ñëw <laughs> dañu dama bëgg ñu ñëw ci jëfu mm. bàyyi alaaji sunu bàyyi Daam Jóob ci jëf yi mu daan jëf ci gàmmu Tiwaawan ren muy premier gàmmu gu Baye Dame Diop wuute te ñu gis ni lu mu daan def dafa yokk loolu lan la waaw loolu sunu mag ji Moodu xam na ci dara te moom mooy capitaine bi mu daan doxal lépp moo tax yàlla dogal na gis nga bi mu fi jógee nii tey waaw ñoo daan waa ni nga ko waxee waaye tey bi mu fi jógee amul làmbatuwuñu maanaam jàngal na leen ba ngeen mokkal laata moo dem. fajar la ñu daan woo. man ak Modou mii. pour diir mag ñi. Eh, seen mbir beneen affaire la. man ak moodu mii dañu daan woo fajar bu ñu jël saan du génn jàkk fajar dañuy woo surtout bu gàmmu desee ñaari weer la koy préparé mënuñu fonk leen ma gàmm gi comme ni ko Modou waxee sànq. Mm-hmm. ne Tiwaawan ak Kër Ngunda yamalewu ko woon dara. neewoon na kaaba ga ca màkka hmm. rek ma jaaxal waaye mu ko mënoon indi ci ñaari dëkk yi dama ko fi indi. la ilaha illallah. xoolal tolluwaay boobu. allahu ci pas-pas. gàmm gi amul lu ko woon limite. du budget amul budget wutul ko woon budget. day ñëw di def di def di def ndeysaan moo xalifa moo góor ga sëñ Mouhamadul Mansour bam daal. radiyallahu moo tax li indi loolu du caaxaan. ba tax na sunu papa alaaj daam buñ ci dee wax. Hmm. sax suñu sago day des ndaxte tellement que euh, fi mu tolloon ci taxawaay ci Tiwaawan ci ci ci ci tarixa bi beneen affaire la woon li ma gën a yéem mooy dafa mel ni Alaaji Daam Jóob doom yi dañ doon concours ci maa la ko gën a kenn ku ne day wan sa morom ni maa gën maa la gën a bëgg sam papa yaa ko ci góor ak jigéen nag ci ni nga ko waxee noonu la amee Daam Jóob euh, doom jum jur waxuma la ak doom de njaboot gu nekk ci kër ga gu mën a doon bu mën a tuuti am na ci yow yërmande boo xam ne si le dafa mel ne yaa koy gënal doomam da nga jàpp ne mu yow rek la bëgg waxuma la ak doom nag ñun ni ñu mel ci moom buñ dee wax Modou mii ak leneen ak leneen ak leneen Aïda Mbène ñoon ñëpp njaboot gi yëpp benn pas-pas lañ am maanaam tey mais am na loo xam ne kenn ñu ko wax mm-hmm. mais ñun dañu jàppoon na du génn àdduna moom góor gi waaw iski waaye nag yàlla subhaanahu wa dogalam du weddi amul yàlla subhaanahu wa taala te nag ku gëm yàlla la ni ko Moodu waxee man bi ma ñëwee yàlla dogal na Moodu moo fekkee bi mu génn àdduna moo ko préparé moo ko defar lépp ba dugal ko ci kees <coughs> kon ñun kii mooy suñu bàyyi tey. wallaahi la man ba bi bi bi yëf yi méttee métti ma ñëw Maroc seeti ko bi ma ñëwee ma dugg ci laa xam ne lan ma daan wax moom. loolu yegg si na ci moom ma nangu ne yàlla lim nar a dogal xam gis naa ndax dama ko daan wax moom dañ daan ànd seeti nit mu toll ci étape boo xam ne danaan ma aas kii di nangam nangam yàlla dogal loolu ñëwaat ci moom ba mu ñëwee Modou ne ma Modou xam na lecture bi man Modou xamoon na ne man mënuma tiim sama pàpp la Modou bu daan bu daan bu rangoñam daan ñëw sax day génn làqatu ndax bëggul ma gis rangoñam pour wax ne kii kilifa la sunu kilifa kii man damay jooy mënuma mu téye sama bopp wax dëgg yàlla waaye alaaj daam man mënu moon a fekkee fu muy génne àdduna ak fu ñu koy defaree ak fu ñu defee nangam tabaarakallaahu booy wax foofu sax damay sensible quand même waaw ah, vraiment ah, parce que dañoo wéet waaye wéetuñu ndaxte kii moo ñàkk Modou Sénégal ñu ngi leen xamal ne Modou mbenn moo ñàkk baayam waaye ñun njabootam ñàkkuñu ndax am nañ Modou Mbène seede mat sëkk jox ko jox ko jox ko micro bi jox ko micro bi waaw. man man man ndox man ko foofu laay téye ma ko man moom daf ne am na bàyyi waaye man am naay rak yal na yàlla fayal ñu leen. Eh, fa laa woon njëkkee sax ndax ni ko waxee rek mooy dëgg wax naa ko à travers 2STV bi ñëwee di ko defal lii di ko hommage maa ngi leen Alxaaji Dame Diop koy wax ci 2STV maa ngi koy ñii ñii sédd Sénégal yépp hmm. ne njabootam sant nañ ko gërëm nañ ko. Hmm. lépp loo xam ne yàlla ku yàlla booleel lépp loo xam ne def na ci yow ba def sax lu ko warul ndax moom yàlla dimbali woon na ko dimbali koo xam ne jàpp na ne ku mu gis rek moo war defar noonu la ko yàlla bindee woon wax naa sa bàpp sama bàpp ba muy dafa judd rek baax. moom góor <laughs> yàlla ko dim ba muy baax amul dara. billaahi wallaahi taala kon maanaam ju jii muy jëf ba mu yorul dara maam ndox naa la wax loo xam ne xam nga réew mi neex léegi rek mais alaaji daam ji Mansour ba muy baax di tabe boobu amul dara allahu akbar sama maam nee na ma benn bis bay na ba bay am bay mu bay dem bay yëpp nekk lu ñetti jox ko ma ñaari junne ñeenti téeméer hmm. mu jaay ko ba mu jëlee ci ba ngoon jot ko ataaya waa dëkk bi da ko ataayaal waa dëkk bi <laughs> sa papa xëy sama maam xëy na ko waaw daa mën a xaalis mu ne waaw ah, yaay atal naa tey atal waa dëkk biig ku bay baykat jamonoy baykat bay ba at jeex nga am bay amoo lu ñaari junne ñeenti téeméer ngoon jot nga jël ko ataaya ko waa dëkk bi te mooy ataaya de. mooy joxe alalam mooy ataaya mooy ataaya mais kon tab est-ce que du sunu borom moo koy bindiwaale. maanaam maanaam góor gi dafa nekkoon nit koo xam ne jëf yàlla la woon.